élection bu 2024 tijjeeku na. ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. bokk président Macky Sall defaraat na taxawaay yi bu baax ci ñi nga xamante ne ñoo war a dem ci jongante boobu ñu ci njëkk ñoom ñooy ñii bokk ci nguur gi te dara leeragul ci ñoom. ñeneen ñi ci topp di opposition bi ak ku nekk say jafe-jafe bi ci topp di ñetteel bi di waa PASTEF dëgmal li di 2024. droit bi nga xam ne peuple bi nga xam ne ñu ngi koy teg lu dul yoon constitution ne peuple boobu am na droit résister. mu nekk lu jaxasoo dara leerul ci kenn ci bépp boor. kii di Mamadou Lamine Diallo nar a bokk ci jongante yooyu mu ne ñëpp dañ ci war a bokk wante mooma am na ci lu mu àndul. Macky Sall moo sombi affaire u Karim Wade ak Khalifa sal sama proposition du tey laa wax de ça fait au moins deux ou trois ans décret la war a jël pour delloo leen ci liste électorale mu ñu am loi électorale boo xam ne c'est c'est président bi mooy décider dans une grâce présidentielle te xam ngeen ne grâce na muy newee ah xamu sax moom ñu muy gracier et puis la loi elle est impersonnelle. sàmm démocratie baax na. programme yi tamit. ay usines yu ñu war a andi fii xale yi liggéey loolu mooy sama projet politique. wàccuma ko tey négocié wu ma ko man Sénégal laay topp askanu Sénégal laa topp. 2024 di ñëw processus électoral bi ñu war ci càmbar yu bëre toppatoo loolu ba mu baax nag mooy benn ci lu bëri li jox ndam démocratie Sénégal ci biir Afrique.